ak cortège bi ñëw xaalis bi lu mu bari bari alal di laa wax danga koy ba mbaama bara benn mu jëkk-jëkk nekk du fi wala nga dem ba ko rek kon ndax kooku jëru bu teg fee seet nooy def ak moom jëru yàq sa diine ak sa mbokk ak sa taalibe ak sa jikko a daara jot nag sëñ sa doon nañ ko jàngal ndax sëñ joko jangalo neena ba bis ba ngelaw lu ñëwee eh, kii beles <laughs> man ngeen yoo xam xam wax ñoom gelas bu ñewé neena ko la baatu ndax neen bu bi bu ñeek ba kënu yéeg maaj yéeg ru ko nangam ko mu Sénégal yëpp lu graw lool benn ba neena mu ñëw nekk ci wago buñ daaj ne ci kess ñi naan deug li ñu naan dëgg nee ko la man ba ab <laughs> <laughs> mbër yi tubaab yi bëri kon daraja ji da ngay dee ba sonn sëriñ bi fi déggoon armi armeel li waroon sëñ bi dama ci jàngal dama tudd tur yi damaa jaar place am ca marché bi gis ni muy ne naan tey de moom damay yàkkamti ndax man am na ñu doon bindi man ne marché sa rabu marché marché moom da ngay dee ba sonn bu ma fa wala si lam ara xayruhu wala xayruhu waxal mbayit ba yaa ma ko joxoon léegi de anamu maa mokkal ko wala raw gisee xëy daa na wala mu ngoo nee na lu ma gis rek mën naa ci gis yàlla lu ma gis yàlla laa ci gis àggu ma foofu man ba dem ci yéem yàlla sëñ bii ma laaj ko ne ko waaye ñii sa bunt place bi xanaa dañ la yàqal sa liggéey fàtte nga moo xoon de mu ne ma déedéet sëñ bi mu yàqal ah, yow fi bis bii sa bi kenn du mën a dugg ndax place bi place yeeg ñu nag mu ne ma ñii kat sëñ bi daanaka dañ may liggéey ndax dañ maa leen jox ñu joxoon joxoon ma disque seetlu yàlla te maa ko yàqal kat ndekete ne ku romb marché yéemoo yàlla ci wërsëg yi dof nga astaabal si dina yóbbu wàllam bitig bi tàngasee bi kii ku ne di nga yóbbu sa wàllam marché ci kéemtaan ya yàlla yàlla séddale wërsëg yi moo tax xam sa bopp dafa neex sa dundee neex soxna yi ci ngeen de ndax yéenee kër yi benn soxna xamul mu def oustaz <laughs> dafa bëgg borom kër ah waaye bi xam naa daa mel benn muhaddis mu ne ko léegi mu ne <laughs> man muhaddis mooy lan fi oustaz ingénieur waaw ki bëgg mu tax ko ki ñëw ne ko lan nga moo tax ne ko directeur naa mu dàq am mu ne ko yow lan nga mu ne ko ah soxna si dëgg-dëgg damay xaw kii doon bàyyi te mbay mi temps yi moom da ngay dee ba sol <laughs> mu ne ko yow mii laa bëgg nawlem lay wër ba mu ko nangulee ba noppi waa ja dem ca bàyyam ne ko man ndaw si ñàkk nañu borom barke man la bëgg waa du mu demee nii dama bëgg def surga mu ne ko dee wala ndaw si ma laaj ko ko mu ndaw si ne ko yowee eh, dangaa rafet ba ñëpp dina bëgg sama doom ñëw bëgg si la nga dàq ñëpp bëgg léegi lu xew loo ko bëggee waaw na ko bëgg a def jaam xam nga loolu la bañ ma ma nga mum naa dañu séeréer di yow mu ne ko mu fay ne loo bëggee soo doom mu ne ko ah da nga koy laaj sama baay yaa bëgg na mu dem ca baay ja ne ko sa doom ji ñaari mag lañ mën a ñor lu bëgg sama doom mu ne ko lu tax mu ne ko dàq na ingénieur dàq na daq na nangam nag sama doom ñëw na daanaka man baykat laa ngi def doom daf ma bay doom da ngay sol nag lu mu ko war bëgge mu ne baax baa mu wooye sa doom ma laaj ko mu woo ndaw si ne ko yee eh. <laughs> daa bëgg sama doom mu ne ko waaw mu ne xam naa loo ko bëggee mu ne ko lu tax mu ne ko naw la ngay wut mu ko sa baay bii de bay sa baay bii baykat la mu ne ko waaw mu ko ah man baykat la ba tax nga tànn ko daf ne dong <laughs> ndaw si ne loolu sama sama baay bay bay ma doon doomu baykat mais monsieur Kéré damay yàpp te ma nit duma ko nawloo kii bàyyam doon baykat ma doon baykat moom lay séel ànd nawle da lay respecté nga respecté